sunu borom danoo sàkk ngir nu jaamu ko kon laneen lu nu nekk lu dul jaamu ko noo ngi tardeel sunu bopp mbokk mi boo dundoon juróom benn fukki at bés bu set yaa ngi nelaw juróom ñetti waxtu huit de temps kon sa juróom benn fukki at yi nga dund ñaar fukki at ya gën gaa néew da koo nelaw ci sa juróom benn fukki at yi boo boolee añ ak reer la ngay def ca ndab la dina mat fanweeri minute kon sànq nga am at gën gaa néew ci lekk ci sa juróom-benn fukki at yi nga dund boo xoolee di nga toog di waxtaan ci bés bi gën gaa néew benn waxtu moo xam sa kër wala grand place kon sànq nga ñaari at gën gaa néew ci waxtaan ci sa juróom-benn fukki at yi nga dund boo xëyee liggéey ba ba ngay wàcc dina la jëlal juróom-ñetti waxtu gën gaa néew kon sank nga lu toll ci ñaar fukki at ci sab liggey gën gaa néew ci juroom ben fukki at yi nga dund boo seetloo kon su juroom ben fukki at yi nga dund juroom fukki ya ak juroom ñet yépp ci sa bop nga ko nek ana lan nga ca jox yalla gën bari ñaari at dong dong mo ne mom mom lepp de lu mata baye xala ngo bokki li yalla mom muy sa joxoko ko doy na bàkkaar dina fi yées kon ci ki nga xam ne day sànk waxtoom yépp ci mooy yàlla dina fi yées ci kiy lekk riba kiy dund ci naxaate kiy jëw ki yàq deru moroomam kiy rambaaj dina fi yées kiy yàq waxtoom wépp ci tasub ànd di jaxasey bokk di féewale jullit dina fi yées ci ki yéene wut moroomam lu baax bëggul mu séq benn jéego jëm ca kanam dina fi yées ci ki nga xam ne fu ñu tuddee moroomu jullitam mu teg ca lu ñaaw di ko waxal lu du dëgg ak di ko sosal dina fi yées ci ki joxut cër ay waajuram war malun mag ñi yërëmu ndaw ñi dina fi yées ci ki doyee dal sharia bàyyiwut xel yàlla ci li muy def ak li muy wax dina fi yées ci ki ñaaw njort ci nit ñi lu mu ñàkk jàpp ne moroomam a ko xañ lu ko dal jàpp ne nit ak ko teg yii yëpp nag yu fees dell la suñ jamonoy tey ji te dara waralu ko lu dut bëgg àdduna daraje àdduna ak poñetum àdduna ànd ak ñàkk xam yàlla ñak gëm yàlla ñak ragal yàlla ñak doylo yàlla mo ne de lépp loy sàkku di jóg di ko wuti ci loxo yàlla la nek lépp lo ragal won ko ginnaw di daw ci notelu yàlla la nek lépp lu lay tee jaamu yàlla ci dogalub yàlla mi lako sant lay dox kon dara dara dula jariñ wala mu lay lor lu dul ne yàlla mi mom moko nam qul lan yusibanaa illa ma kataba allahu lana kon ana lan mo la wara jaral baña top yalla amut monede, ne de bu ko neexoon bëgg loola dara lol, lol, lol, nga di ci kurti kurti sa giirug dundu te do ci jop bu ko neexoon tawatal la fu ne nga dem fa ci aduna lu ne nga ñak ko ci te do wér bés bu set yalla wan la lu wara tax nga sant ko te top ko demal ci armeel ya, da ngay japp ne kenn desul ci kaw suuf ana lo dara moo ne la gën a bëgg fa ñu nekk ñoom mooy dellu si fi nga nekk yow muy àdduna donte benn minute la ngir mën fay jëf lu baax luñ dollee seenub yool kon yow mi demagul xamal na yàlla may na la chance ngir nga mën a feesal sa téere ak lu baax bu ko sàggane demal ca hôpital ba dangay jàpp ne kenn wérul loo leen gëne dara am na ca ñoo xam ne boo ne leen woon kaay wér tey jii tey fanaanee naafi la sa giirug dund ñu ne la ay cë am na ñuy wéy ak jàngoro joo xam ne boo ne leen woon tey jii kaay wér te ndóol ba faw ñu ne la ay ca kon yow mi dara jotul yàlla may na la chance ci jox la wér ak kàttan joo ko jaamoo bu ko sàggane dangay nekk cib sofaan nag di def lu la neex dara fekku la ca nga jàpp ne yaa ca ne seytaane di la jàmm ngay wéy rek waaye xamal ne yàlla ku mën a seetaan la léeg-léeg waaye buy faj mbir mooy raw melax wala nga gis ku nekk ci mbir mu yàlla gërëmut boo waxee mu ne la yàlla bari na yërmande yenn yu metti yi yàlla néeg na koo teg kenn dëgg la ne yàlla ku bari yërmande la moo wax ne ma ci wa rahmati wasi'at kulla shay'in yërmandeem dañ na fépp dañ na lépp dañ na ñëpp waaye yow mi wax loolu danga ngaa ndax danga natt yàlla ci sa bopp jàpp ne yàlla dafa am xol ni nga ko amee yàlla moo sàkk xol te ba mu ko daatal sàkk moom sunu borom subhaanahu wa taala fekk na mu am kon yàlla amatul xol bay yëg li nga yëg ni nga koy yëge bay néega a def mbir liir bi liir bi dee ci lakk gi ku ko rey xale bi camion bi nappaaje ci tali bi ku ko waral ki tawat bañ koy tëral ak a yëkkati ku ko teg ki judd rek ndeyam dee ku ko waral yàlla yàlla mën na lu ne sañ na lu ne te lu mu def kenn du ne ko lu tax te lu waay def baa nga wax ko faw nga gis pay gu dëppoog loola يوم القيامة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره موي لو رافيت ولا لو نياو لو متوتي توتي بوكو نيهي مبوغل لا تاي جي بوكو نيهي خارل الله يوم القيامة غا فوك ني لي غاي ديف دارا دولا سي فيك نداخ نجايوم سيطان يالا يكمتي وول دارا انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون تمبوغلوم الله مو غنا مت غنا تيس غنا يغ kon gaawal jàmm yàlla balaa dee ñëw gaawal jàmm yàlla ci sa ndaw balaa mag a ñëw gaawal jàmm yàlla ci sa kàttan balaa tëlee ñëw gaawal jàmm yàlla ci sa alal balaa ñàkk ñëw gaawal jàmm yàlla ci sa wér balaa rawat a ñëw lu ci ne ci yii nag ndénkaan la lu yàlla di nangu bés muy sa dund gi muy sa ndaw gi muy sa kàttan gi muy sa alal ji muy sa wér gi te xamoo kañ la bokk yi adduna saxut dinañ fi jóge ci diir bu gàtt dellu ca suñu borom subhanahu wa taala te ku dem faw ñu laaj la noo fi nekke woon ak loo fi nekke woon te suñu borom lu mu wax dina ko def mbokk yi kon ana lu fi jar yenn yi di añaanante di bañante di yéenante aw ay di xëccoo alal ba ci rayante di xiiroo ci nguurug àdduna ba ci lorante ku yàlla def mu gën la nga di ko sosal ku yàlla def mu raw la nga di ko teqatal di jaay sa ngor ci ànd ak nit ngir alal jum lay mosal bu ko mën a tut nga ne ko fa gupp seeti kaneen ku lay mosal kenn bëggut ku ko romb kenn bëggut ku tollook moom déggatoo mukk kaay ñu ànd dem toppal sama ginnaaw rek ngay dégg bu sa yitte doonee jiitu wala jiite ñu gàllankoor la ba dootul séq benn ni waaw mbokk yi lii bu ko sun ndaw ñi dee gis di ko dund màgge ci fan lañu ñu jëm ëllëg te lii lépp yàlla dana ko tere mbokk yi yàlla moo ñu moom bokkuñoo kenn sàkkuñu tëtëguwul kenn man ci nun lu ne sañ ci nun lu ne kon waabudullaha wala tushriku bi shay'an nanu jaamu yàlla te bañ koo boole ak dara te nu xam ne jaamu yàlla wàccut kenn ndax ñàkk koo def amutu lay nanu fonk kon julli juróom bañ leen sàggane di tey woor weeru koor di natt azaka ci ku ko alal mate aj maka ci ku ko man te luñu ci def ci yi ñu def ko ngir jëmmi yàlla mi nu ko sant ndax bari waa ko ci def mbir du ci amé luddul ak ciona sallallahu taala wa sallam mo wax ne tu'radu a'malu bani aadama bayna yaday allahi yawma alqiyama wa suhufun muxattama fa yaqulu allah alqu hada wa aqbalu hada fa taqulu almalaikatu ya rabbi ma ra'ayna minhu illa xayran fa yaqulu allah إن عمله كان لغير وشي ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وشي صلى الله عليه وسلم dane jëfi doomu aadama yépp def na leen teg ca kanam sunu borom subhanahu wa taala bu yowmal qiyaame sunu borom wax malaayika yi ne leen jëf ji moom sànni leen ko jëf jee nangu leen ko bu ko defee malaayika yi ne ko yow sunu borom kii jëfam jee lu baax rek lañ ci gis sunu borom subhanahu wa taala ne leen waaye taxuma ko woon di jëf da doon gis sal te bisub tay bi duma ma nangu jënn jëf judul ji jaam bi jëf te sama jëm ji rek tax kon lu nu def ci jaamu yi nanu koy selal ndax lu tol ne fépp suuf ci ngi sal day neenal jëf jaam bi gannaaw lolu bokk yi société bo gis bu ne yaakaara mi ngi ko wekk ci ay ndawam ndaw yi tay ñoy magi ëlëk fi magi tay yi nek ño fay ne ëlëk kon ab société bu yàqoo ndaw ñi lañ waajalul won nit ki nak lay yaakaaram ëllëg war na ko fonk sàmm ko làq ko fu yàq ëggul suñu yaakaar jii nag di ndaw ñi fonk leen du lu ñu bëgg nga def ko du lu ñu namm nga won leen du lu ñu laaj nga jox leen di leen kof kofal bàyyi leen ci li leen neex déedéet xale xamut lu koy jariñ lu ko neex rek la boo ko bañee xañ li ko neex ngir bañ mu jooy bañ koo wan li koy jariñ ngir bañ koo sonal xamal ne jooyi tayam moo gën fopp jooyi ëllëgam coonab tayam moo gën fopp coonab ëllëgam te lu mu joy joy di nga joy lu ko raw fop yowmal khiyam lu mu sonn euleuk di nga son di nga sonn lu ko raw fop yowmal khiyam ndax liko dal yaay responsable te dina ko yow yowmal khiyam te dina la